ñu ñëw nag ci sëñ bi nan la fi daa tërbiyaa nit mag ñi amul yaakaar naa benn téere boo xam ne dajale nañ fa ne nii la sëñ bi daa tërbiya lii mooy al manhaj at tarbawi al xadimi wala li cheikh al xadim waaye bu ñu seppantalee li nekk ci minanu baaxil xadim ak lu mel ne irwa ul nadim ak nafahatul miskiya ak téere yi nga xam ne moom lañ bind te mu gën a jege sëriñ bi ñu wax ci sëñ bi ni mu daa yare njaboot gi da ngay seetlu ne am na juróom-ñaari mbir yoo xam ni ci la sëñ bi daa tërbiyaa mag ñi la ca jiitu cheikh Mouhamadou Bachir dafa xam ne ku ñëw ñaar lay jëkkeeg yow awaluma yaxuduhum bihi taallumu faraid al ayaani li muy jëkkeeg yow mooy jàng loola sa xam sa faratay diine sëñ bi bokk na ci lim ràññi ko mooy boo ñëwee faw mu dugal la jàngal la xam-xam dinaay wax ne njàng moomu settiwu ci kenn sëñ Muntaxa mi doomam sëñ Cheikh ci téere boobu wax na ne al murabbil hakim hayatul murabbil hakim wax na ne sëñ Muntaxa nee na sëñ Basiru nee na ko maam Cheikh Ibrahima Fall keroog bu ñëwee jébbalu si risaalatu ibnu abi zeydin na ko sëñ bi njëkk a jàngloo loolu day war a ne sëñ bi settiwu ci kenn ku masaa ñëw dana la jàngloo téere yim lay jàngaloo yim yim leen di jàngaloo nag lu ci bari moo koy tarif loolu mooy li wax ne alayka ya muridu bi taallumi fa innahu mutahirun min zulami ak yeneen ak yeneen du yem ci loolu boo tàmbalee jàngit mu dugal la ci daara ji ngay liggéey sëñ bi su dafa wax ne sëñ bi daa seetlu ne kajoor ak bawal ak fii mu feeñ dañoo xaw a tàyyel moo tax ku masaa ñëw faw mu tërbiya la ci liggéey loola ngir dindi ci yow tàyyel te liggéey bi nag day ànd nag xiif loola xiifal la ndax dawu leen faggul wala mu leen di warlul luñ lekk moom loolu moom bokku ci woon moo tax suñ bo Mouhamed Lamine Diop dagan wax ne bi tajwii wal istixdaami al kathir mag ñi sëriñ bi da leen daa digal ñu néewal seenu xewlu dala wax ne wakun la daa axdika quutan misla man yastaru lil maytati bala ngaa xewlu na nga dem ba médd dagan ci yow loolu la suñ bi daa wax moo tax ñu daa ñi nekkoon ak moom sëñ Mbàkke bu soo wax nañ ne diir bi mu nekk sëriñ bi sëriñ bi di bind Masaalikul Jinaan ca Mbàkke bool diir boobee ba mu fa jógee ci la mujj mënatut a xéwlu lu bari wax nañ sax ni daana wax ne ab nen ku ko mën a xéwloo ba mu jeex kooku yéem na ko benn nen kon loolu mooy ñaareelu kii bi mooy mooy dalay jàngal xam-xam boo ñëwee di la liggéeyloo ñetteel ba mu sóob la ci nga feral sa bakkan Cheikh Mouhamadul Bachir dafa wax ne fatmu nafsi an malazi dunia wal iraadi an il jaahi wal maali wal intibaadi ala al amali saalih wa ixlaasi niyati fi kulli cheyin wa taxarri li maqasid alsharci wa xikmatihi fi kulli amrin dalay sóob ci nga feral sa bakkan moytu moytoo sopp xoy-xoy yi adduna yi dëddu daraja yi adduna dëddu bëgg alal nga seppi ko ci sa xol këpp nag ci jëf jëf ju baax tey sellal yéene te looy def nga jiital ci yéene te yàlla rekk tax looy def it na dëppoog ni ko suñu borom diglee ci sharia bul juyoo mukk ak sharia loolu moom leen daa sóob moom sëñ bi ci nim leen daa tërbiya Cheikh Mouhamad Lamine Diop Dagana wax na ne soo ma laajoon lan la sëriñ bi woote jëm dama koy gàttal ci ne mooy al ixlaas ixlaas mooy sellal rek sellal ci say wax ci say jëf ci sa yëngutu yëpp sa lépp looy def nga def ko te yàlla rek tax sëñ bi daa ci teg itam di leen suub ci ñuy tudd yàlla tudd gu bari mag ñi njëkk ànd ak moom daw ñu seraw ci tudd yàlla moom da leen daa wax ne xayru taami lil muridi saliki dawaamu dikri dil jalalil maliki lekk gi gën a neex ci murit moo war a nekk saxoo tudd yàlla moo tax da leen daa jox wérdu yi mu yoroon njëkk muy am wérdul maaxuus daana joxe wérdul qaadir ak tijaan ak saadali yépp daana ko joxe ndax rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo ko ko joxal boppam ba mu nekkee ca géej ga ginnaaw buñ nongoo ci moom mboolem lu ma lu ko nit ma sa jox ginnaaw bi mu demee ba am wérdul boppam itam muy wérdul maaxuus ku masaa ñëw dalay wax ne boo yoree beneen beneen wird bu la neexee nga boole koog moom loolu nuurun ala nuurin la soo mënta boole ñaari nag nga yem ci sama wird yi te xam ne lépp li yi yi nekk ci yeneen wird yépp mi ngi ci boo ko yoree di ko def mel na ne yaa ngi def li ne ci awraad yi ci kaw suuf yépp moom la Cheikh Mouhamadul Bachir wax ne fa jamaa al kulla wa zaada wartaqa am na feneen fu wax ne ida axasta wa in axasta wirdahu axasta wirdal jamii la taxaafu kapta waaye dawuñu yem rek ci wirdu woowu waaye dañ daa jàng alquran jàng alquran daa bokk ci dunduk am murid kullu muridin bi yeluudu fal yudim tilawatan li xayri dikrin qadru si daw yem ci yem ci loolu dañ daa boole di zikkar laa ilaha illallah laa ilaha illallah ji nga gis Baay Faal yi di ko sikkar loolu ci murid la bokk wax nañ ne Sëñ Tuubaa ba muy nekk Tuubaa moom ci boppam moo ko daa dëbbeel boppam nekk ci biir mbaar mi murid yi nekk ci biti di ko aw waaye nag laa ilaha illallah jam daa wax dawu ci rax dara dara dawu ci yokk itam dawut nongi kenn ko ci yokk beneen baat gin boole ko gi di jàng xasida Cheikh Mouhamad Lamine Diop Dagana loolu la wax dafa wax ne murid yi dañuy wax dëkk xëy la la ak jàng xasida ak xeeti zikkar yépp rek ndax xasida mboolem xeeti zikkar yépp mi ngi ci sëñ Bachir wax ne nag loolu yi bu ko àndeek ñoom ba mu sax ci ñoom day mujj nag léeg-léeg mu jataayoo ak ñoom di leen xamal ni na ngeen def ci seen xel ne kenn gënul kenn lu may gën koo ragal yàlla ak gën koo baax ak ëpp ko diine ak gën koo jege yàlla kese la la ñu gën a wéet sëñ Bachir dafa wax ne summa ida ataadul amala jamian suduran wa wurudan bila tamyisi ahadin minhum an ahad qarabahum li fahmi lmusawaat bayna annaas illa bi mumayisin min alfadail annafsaniya alqayima xam ngeen ne ni ma ko waxee société bi dafa amoon ay classe sociale yu fi amoon nit ñi àgg ci di xeebante ngir xeeti métier yenn yi nga xam ne moom la yenn ñi nit ñi am sëñ bi nag loolu da ko xeex xamal nit ñi ne leen lenn rek ay tax nit nga gën ko mooy gën koo ragal yàlla is akramul ibada inda lay aktaruhum taqwa yëmul ci loolu danaa jël ci ñii di jox ca ñële ay soxna di jële ci ñoom soxna di jox ñii da leen a jaxase woon ci ay sëy jaxase leen itam ci métier yi ñuy def mu koy def loo ñette def noonu la fi jële woon classe sociale yooyu wàllu tarixa itam génne woon na ko ci bopp murid yam njëkkoon a àndal xamal leen ne tarixa yépp baax nañ bul xeeb kenn bul reetaan kenn bul woyefal sëriñu kenn ànd ak loolu lépp itam sëñ bi daa leen suub ci ay teggin sëñ Tuubaa dara wax ne jaamu yàlla yii mooy maye àjjana waaye teggin mooy maye yàlla moom la wax ne wa saxa anna al awliya al wasilin ma wasalu ila ilahi al alamin bi kasrati al amali ka salati wa hajji baytillahi wa zakati bal wasalu ilayhi bi riaya li jumlati al aadabi bil inaya gaa yi àgg ci yàlla du julli yu bari moo leen ci àggale du woor woor yu bari moo leen ci àggale du joxe asaka wala aj màkk yu bari moo leen ci àggale la leen ci àggale mooy sàmm teggin moo tax suñ tubaab da leen daa wax ne teggin ñaar la teggin yi dox sa diggante ak sa borom te moo gën a mat a sàmm ak teggin yi dox sa diggante ak sa morom suñ tubaab da wax ne iz kullu man bi gayrihi raamat sibaa fa innahu yuhramu fawzan wa intifaa am na feneen fu wax ne li annahu bihi ila arrahmani yasilu abdun wa ila aljinaani nit mënta àgg ci yàlla te amul teggin murit dinaay wax lu bare bari ne murit buñ ko misaaloon ci jëmm jëmm ji mooy alqur sharia ju tegu ci alquran ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ruux gi ci biiram mooy ay teggin murit gu alut ak teggin moo jëmm ju amatul ruux ñooyam moo tax mag ñi njëkk a ànd ak sëriñ bi sëriñ bi da leen daa yar ci am ay teggin ci teggin yoo xam day feeñ ci seen i wax di feeñ ci seen i jëf di feeñ ci seen seen axwaal yëpp dina dina ci joxe léeg-léeg misaal moo xam ni xaw naa xorom waaye dañ ciy déggee teggin yi mag ñi amee woon te mooy li ñu wax ne sëñ bi dafa laaj luy yëngu am ku ko ne boo ma ci mayee ndigal man leeral yëngu bi sëñ bi ne ko am nga ci ndigal mu ne ko jaamub yàlla la woon bu xeeboon wërsëgam ba tax koo àgg ci wërsëgu jàmbur doon ca sàkku ndolleen te amu ca ndigal borom wërsëgoo fekk ko fa ñu ànd ñoom ñaar jiit leen di yokk seen i jéego tuut tànk yowoon ci penc ma di leen yokkale jéego yi mu mel ne ka jiitu lañu lañu dab ba di ko tegoo ay ay ay barke nga xam ne moom xet nett li na ab xew-xew ba xew-xew bi jeex te dara ci tooñ nekku ci jaamu bi yàlla bu xeeb wërsëgam ba tax koo àgg ci wërsëgu jaamu du ca sàkku ndolleen xam kooku moom ku ne xam ne baat bi gën a gàtt mu kenn ku ne xam ne ko ci noonu waaye bu ko waxee mën a nuru tooñ ci moom gis nga ba ci tuut tànk yi da wax ne seeni tànk tuut rek waaye lu ne mën nañ koo doon kon teggin yooyu yi nga xam ne day feeñ ci say wax di feeñ ci say jëf di feeñ ci say lépp loolu ci la sëñ bi daa yar mag ñi àndaloon nga xam ne ab ponk la ci ak murit sëñ Basiru wax ne itam da ci daa boole léeg-léeg mu jotaayoog ñoom di leen defal ay tomb la newoon ca téere yi mu leen koy gàttalal yulqi ilayhim fi fataraat al amal min lataif al xikami maa yubassiruhum bihi uyuba nafs ci jataay yooyu ci la ñuy wan ci la leen di wane seen sikki bopp kenn ku ne boo ci jógee di nga xam li baaxul ci yow ak li des ci yow ci la leen di joxañ itam jikko yu baax yi ngir ñu mën ko làmboo ci lay leerale seeni xel ak seeni xol ci la leen di itam yëkkati seeni yitte def ko muy jenn yitte te muy wut yàlla te yàlla rek tax na suñ dara wax ne idil muridu laa yuridu abadan xayra rida rahmaani murid yàlla kese kese moo war a nekk yitteem sëñ Tuubaa sëñ Basiiru wax na ne bi mu nekkee Tuubaa yabal na ku ñuy wax Abdullahi Jaw ca Daaru Salaam ne ko boo demee waxal murid ya ne leen koo ci xam ne adduna mooy yitteem na dem te bàyyil ma fi daara ji koo ci xam ne alaaxira mooy yitteem na dem te bàyyil ma fi daara ji koo ca xam ne adduna ak àllaaxira mooy yitteem na dem sa bàyyil ma fi daara bi koo ca xam ne nag yàlla kese mooy yitteem na toog am na xam ngeen ne am na ñoo xam ni liñ toppe sëriñ bi mooy bëgg a dem àjjana kese kooku mooy ki nga xam ne àllaaxira mooy yitteem Sëriñ Tuubaa nag lam doon woote mooy man lam yurid shay'an siwa mawlahu koo xam ne yàlla kese mooy doon yitteem moo koy ñor moom lay wut ngërëm moom lay dàkk ci lépp ci yëngutoom ci dalam lépp lu ñëw it yàlla rek ci la koy delloo kookee la sëñ bi doon loole la sëñ bi doon woote loolu mooy iradatu wajhillahi yuriduna wajhahu daana leen wax itam ci jataay yooyu ne leen kiiraay yi dox seen diggante ak seen borom juróom benn kiiraay la qul kasratul akli wa kasratu sharaab summa mulaqatu baraya bistihab mooy xéewal gu bari xéewalu lu bari murit bu koy def du gaaw a àgg loolu sëñ bi daa wax sëñ bi daa wax ne malaayka yi buñ gisee murit buy xéewlu xéewlu gu bari dañuy jooy ngir yërëm ko ndax xam ne kii du gaaw a dem fenn wa kun la daa axdika xuutan misla man yastaru lil maytati loolu sëñ bi waxoon bala ngaa xéewlu na nga dem ba médd dagan ci yow am na fu wax sax ne wal tajaalul juuca taamakum dinaay nepp li kenn ci mag ñee ñu dëkkal fee ci daalul noot sëñ bi boole woon ko borom daalul noot yi ba muy dem ca géej ga sëñ andi yu ñaŋ yàlla dogal bi sëñ bi ñëwee ba njëreem woolu ko fekk bokkoon na ci ña doon sañ ci Touba bi mu ñëwee jataay bu gudd la waaye sëñ bi da ko wax ne yow de xanaa bokkoon nga ci ña doon sañ ci foofa ñu doon sañ ca Touba mu ne ko waaw waaw ci laa bokkoon de booba de am nañ fa ñetti fan yoo xam ne lekkunu naanunu te ñetteelu fan ba nag nga ñëw indil nu xaal moom lañ fa njëkk a xewloo sëñ bi ne ko booba day ba ma leen fa bàyyee suñu borom ci boobu moo ma xamal ne gaa yi nga àndal duñu ay malaayka jox leen ñu lekk te naan moo tax ma xool xam ne lekk ak naan xaal ma gis lekk ak naan xaal boole ko moo tax ma indi leen xaal nga gis ne kon sëñ bi ñi mu àndal da leen di fàtte sax ci xewlu warlu lu leen ko woon moo tax xewlu gu bari sëñ bi dana wax ne xijaab la ka kii kiiraay la baaraas la buy dox sa digg sa borom ak naan bu bari ak jaxasoo bu bari jaxasoo bu bari bi ak ñelaw yu bari ak wax yu bari ak sàggan ci tudd yàlla yooyu mooy kiiraay yi nga xam ne ñoo gaaw ci dox diggante murit bi ak boromam sëñ bi daan leen wax itam na ngeen xam ne mooy yàlla yépp ci ñett lay sababo rëy mooy sabab mooy yàlla yi ngeen gis yépp mooy yeneen mooy yàlla yu bare bari dañ ci bànqaaso ak xër ak kiñaan ñett yooyu mooy bànqaas yi mooy cosaan yi mooy yàlla yi yeneen mooy yàlla yépp ci yooyu dañuy bànqaasoo na ngeen ko moytu muy rëy ak xër ak kiñaan da leen daa wax itam ne lu ngeen war a def tey bu leen ko xaaree ëllëg da leen daa wax itam ne na ngeen xam ne am na yoo xam ne day yàq jëf te mooy yittewoo sippi nit ñi loolu day tax li nga jëfoon ci lu baax lépp day yàq day yàq jëf loolu xol bu wow itam ci buñ la waxee dëgg doo ko nangu loolu na nga xam ne yooyu yëpp bokk na ci yàq jëf bokk na ci yàq jëf itam bëgg adduna ak ñàkk kersa ak tooñ ak mébét yu gudd yooyu mooy yi nga xam ne ñoo gaaw ci yàq jëfi ab murit daana leen wax itam ne na ngeen xam ne murit benn noonu la am muy seytaane yitteem mooy yàqal murit seytaane yitteem mooy bu kenn am ngërëmul yàlla te murit ngërëmul yàlla la bëgg mu leen wax ne kon na ngeen jàpp na ngeen ko jàppee noonu te xam ne am na yuñ koy musloo la ca jëkk mooy awwaluha al masjidu summa saani dawaamu dikrillahi fi l azmaani saadisuha tilawatu lqurani bi tuhri maa tadabburi lmaani na ngeen sax ci fonk jàkka tey tudd yàlla lu bari tey jàng alquran te saxoog laab loolu bu ngeen ko defee seytaan du am ci yéenu yoon suñ tubaabam seytaane da koo ragaloon daana wax ne man sama jataay seytaane bi ci jaar mukk képp kuy ñëw ci manit seytaane si nga àndal dalee xaar ci bit boo ñëwee fi man li nga jële fi man boo ko sàmmee duutu ànd ak yow mukk waaye boo demee nekk ci leneen it mu toppaat la